asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaare mboolem koy topp Fall 94 Walfu Sénégal seen analyse chronique yi nga xam dañ leen koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen siyaar voilà ku gis image su tey sa yaram dana daw voilà ku gis image su tey sa yaram day daw vraiment les commencé ci image yi fële ca jam euh, ñaajoo ak ci biir pale maanaam nag euh, image yi daw na yaram am na ñoo xam ne ni jooy nan waaye nag euh, bu leen fàtte ne tamit la ancien président Macky Sall jeexal na nekkatul président Sénégal euh, la niveau président Sénégal mooy Bassirou Diomaye fay président Bassirou Diomaye fay voilà euh, gis nañ Macky Sall président Bassirou Diomaye fay gunge na ko ba fa mu war yam mu bàyyi ko nag mu dem génn na pale jeex na voilà léegi nag euh, image yi yëpp am Basiru Jumaay euh, Fay liñ lay ñaan en tant que président mooy euh, dañ lay fàttali wala dañ lay ñaax bul def comme yeneen président yi fexeel ba maanaam yow heure booy wàcc préparé nga sa kër gu baax fii ci Sénégal mën a dem foofu noonu noppalu parce que loolu xaar nañ ko ci yow na nga fexe ba defar réew mi ba ñëpp ànd bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo fexeel ba yow daal bul bokk ci président yi nga xam ne soo wàcc yóbbu alalu réew mi dem ci yeneeni réew jariñ ko yeneeni réew bàyyi sa réew parce que biñ lay jox réew mi dañoo bëggoon booy wàcc ñu ne ah kër président ngi nii foofu la jëm wala fa lay dalloo ji demul ci benn wala réew di fa euh, noos ak a da ngay toog sa réew li nga am nga bàyyiwaat ko sa biir réew ndax liñ la def ba tax nga am loolu tey kan delloowaat ko ci biir réew mi lu am solo la doon kan ba Bassirou Diomaye Faye image yooyu noonu wala discours boobu noonu wala lii nekk na li nga xam ni moom ah, dañ la koy wax maanaam yàlla na yàlla def nga yóbbu réew mi xam nga réew mi fi mu toll nii niveau 1 la nekkoon ñi nga xam bu ñu defee seen analyse réew mi niveau 1 la nekkoon yàlla na nga ko yóbbu ci niveau cinquante wala réew mi na am ak naataange ñëpp di gis seen bopp bu baax a baax ci réew mi yan bi yàlla na woyof si seen kaw. voilà euh, yan bi yàlla na woyof si seen kaw euh, ñëpp a ngi leen di ñaanal nag wax dëgg yàlla am ci yéen yaakaar nag voilà fépp foo xam ne rek jàpp ngeen ni fii bu ngeen fa taxawee senegal dem na ngeen ci gën a taxaw bu baax a baax a baax voilà ancien régime bi fi nekkoon nag yaakaar naa ni moom bu fekkee nag euh, am ngeen ay xalaat tuuti jëm leen a jéem leen a xool nu ngeen def wax dëgg yàlla régime bii fi nekk nii ñëw nañu beneen régime boo xam dañ ko doon xeex ban wàcc ñuy dellu siwaat di ñëwaat di dugg ci biir régime bu bees bi di yàqaat ak di saltel bu ngeen mënta toog Sénégal concentré wu liggéey seen liggéey créer ay emploi créer ay entreprise bu fekkee tamit jël ngeen ci xaalisu Sénégal bi ngeen toog créer ay entreprise voilà bu fekkee nag yoon def na li mu war a def ba pare ndax xam naa ne ñàkkut moom ni yoon du dana def li mu war a def parce que dafa am loo xam ne sénégalais yee ko moom voilà li sénégalais yi moom nag faaw ñu delloo leen ko voilà léegi nag euh, kon yaakaar naa ni daal euh, mu ngi noonu euh, Bassirou Diomaye fay wax dëgg yàlla gunge na Macky Sall génn na pale mu nekk lu daw yaram nag am ñoo xam ne wax dëgg yàlla image bi daal vraiment ak ni ñu gisoon Macky Sall ci biir bi muy waxtaan ak ñi nga xam ne nii voilà ñoom la ñoom ñoom la àndaloon liggéey bi ñoom ñoo ko gën a jige voilà gis nga ko waaye léegi jeex na nguur gu nguuru suñ borom rek yaakaar naa dina jeex moo tax élégance bi ak di jéem a jaay doole ak di jéem a wane lu kenn xamut loolu kenn du ko def sa peuple sa peuple bu ñu la falee da war di dox ci seen waaw voilà waroo leen di merloo waroo leen di def lenn loo xam ndax parce que ñoom ñoo la fal ñoom ñoo tax nga dégg président ñoom ñooy tax nga am li nga war a am lépp kon yaakaar naa ni sa peuple da nga leen war a respecté waaye li fi am yëpp ci année yëpp Euh, sanction yooyu ñu la sanctionné nga xam ne yow ñi nga àndal sax daanaka mën naa ne soxlawuñ sax di leen xool voilà voilà daanaka mën naa ne li nga fi def xam ma def nga fi sax waaye nit ñi gisuñu loolu parce que li tax gisuñu loolu mooy voilà